salaamaaleykum mbokki Fatick salaamaaleykum mbokki Sénégal maa ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk sa tour ak sa sant di jël nuyo bi di ko jiital di ko teg ci loxo son excellence monsieur le président de la république Macky Sall di ziar waa Fatick yëpp di nuyu waa Fatick yëpp di leen nuyu yéen waa Mindiss TV di rafetlu seen teewaay ak seen liggéey seen liggéey bu sell ci réew mi. tour bi lamin la Lamine Sarr jeune leader APR. nekk kuy yëngu ci wàllu politique ci wàllu Fatick bokk ci conseil communal bu kii mairie Fatick nekk benn ndaw boo xamante ne mu ngi ci ginnaaw monsieur le maire Matar Ba nekk ndaw guy liggéey ci wàllu sociale di def euh, mbirum entrepreneur daal. nekk ci ginnaaw ministre des sports nekk gone goo xamante ne gone ci ginnaaw Macky Sall nekk doomi ndug donc APR Fatick va mal euh, nit ku ci nekk ak sa gis-gis nit ku ci nekk ak sa gëm-gëm ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci wàllu Fatick di dox ci wàllu APR va mal euh, am nañ ci part de responsabilité bu bari ay ndaw lañ ñu ñoo nekk ci parti bi am na lu bari loo xamante ne tey ñoom yëngu nañ ko ci biir parti bi ñun ñoo ci doon ànd xëy na Fatick va mal boobu tey ñoom ñu taxaw di ko yuuxu mun naa d'une part yéex na mais dañ ko yuuxu fañ ko war a yuuxu parce que tey ñoom li ñuy yuuxu tey am na ci am nañ ci am nañ ci droit ay citoyen lañ li ñuy yuuxu yuuxu luñ ko seen bopp kon ñun ñëpp lañ koy yuuxul di président de la république suñu doom la suñu mag la suñu lëpp la suñu président la ñoom fi ñu xaw a réeree mbir xamuma ndax ñoom waxtaan nañ loo xam ne waxtaanu biir néeg la am déet foofu daf ma xaw a romb mais li nga xamante ne nag euh, mënoon na ñàkk mooy li nga xamante ne tey taxaw nañ ko ci tali wala ñu taxaw tey di ko def publiquement parce que say sa doom soo ko sàmmee ci biti rek soo ko mayee rek yow yaa ko lu ko buur wax rek yow yaa ko jox bon ñoom yuuxu nañ Macky mais bañuñu Macky Sall parce que guddil nañ ko bëccëgal nañ ko subaal nañ ko ngoonal nañ ko. xëy na li nga xamante ne tey ñoom dañoo taxawte di ko yuuxu publiquement euh, li tax ñu di ko yuuxu tey seeni doom mun nañ màgg suba te naan leen jamonoy président Macky Sall yéen la fi fekkoon kon tey coono gi ñu nekkee tey ba Fatick defaruñ ko wala Fatick di genre kon ñoom loolu la ñuy daw te li ñuy daw noonu ñoom taxaw publiquement di ko wax ñun ñëpp lañ koy dawal. moom ma Matar suñu relation moom dafa jéggi dayoo suñu relation man ak moom foo ko natt rek euh, romb weesu na foofu di dem. nekk na nit ku woyof nekk na nit koo xamante ne tey ba ma koy xam du politique moo ñu boole ànd nañ ci yeneen domaines yoo xamante ne avant politique te jusqu'à présent amul dara loo xamante ne tey changé na ci may profito di jàllale benn message di ko nuyu di ko dollee sant di ko dollee gërëm daal. bon opposition bi li ko may doole yëpp moo nekk li nga xam ne moo nekk ci ginnaaw président de la république te jàppale wuñ ko ci liggéey bi. parce que président ku ko gis ni muy liggéey réew mi ni muy tabaxee réew mi li nga xamante ne tey mooy wàllu yoon président di ci dox wàllu courant wa président di ko indi fa mu toon koy jàllale fa toon ndox mu koy jàllale. kon li doon sooxe ci mim réew mun naa ne tey bi fi président Laay Wàdd di jaar lim fi bàyyi ak li fi màkke yi toll actuellement dafa jéggi dayoo kon euh, li nga xamante ne tey moom la opposition bi di def bu ko am doole. ñi ci ginnaaw Macky te war a jàppale Macky ñoo jàppalewul Macky mais fi ñu waroon taxawu Macky suñ ko taxawoon ni Macky taxawoo réew mi ñoom ku ci nekk gox ba nga gérer soo ko taxawee woon noonu kon li am opposition bi di am ni du ko am. Ousmane Sonko euh, dinaa wax lu tuuti ci moom li tax may wax lu tuuti ci moom euh, mitin yi Kër Massar boobu ngay gis mënul ñàkk mel noonu mu mel. parce que tey soo jëlee tey région bu nekk tey ji nga teg fa ay kaar teg fa xaalis nit ñi dara ñor leen xaalis moo leen ñor kon tey foo gaaree sa kaar tey jii nit ku tekkiwul dara ci réew mi di leen woo am lu mu leen di fay mun munti doon it da ngay dem ko mitin ba newul mitin bu mag de ci terrain la ko def terrain ba mu ko def nekkul terrain boo xamante ne terrain réglementaire la. waaw am na ampleur Sénégal mais Sénégal ku fi samp sa ndënd ku nekk tey jii nit ñi duñ la bàyyi loxoom neen su sampee ndëndam su dee ñaar la sax dinañ ko topp parce que ambiance dafa manqué ci liñ koy topp ñii ñu ngi ko toppee ci ambiance ñii agresseurs yi topp ko Sonko loo xool tey ci ginnaawam euh, ay garde rapprochée lañ. non Ousmane Sonko moom may boppam promotion lim may boppam promotion moom mooy li nga xamante ne tey mooy coow ak aji Sarr xam nga tey ab euh, ndaw ñu di la joxoñ baaraam tuuma nit ku nekk da nga kaa war a moytu ci mim réew tey su fekkee ne tey da am loo visé am foo teg sa bët da ngay sellal sa bopp sellal sa doxalin sellal sa waxin mais man Sonko nekk ni nit koo xamante ne man amul dara ci loo xam ne tey man naw naa ko ko ba war ko mën a toppee parce que man ñi ko topp laa yërëm li tax ma yërëm leen mooy man dama topp. son excellence premier euh, son excellence le président de la république mu yee ma yiir ma yar ma di ma doxloo ci dëgg di ma doxloo ci fulla di ma doxloo ci fayda mais Ousmane Sonko ñi ko topp saaga la leen jàngal xuloo la leen jàngal xeex leen jàngal viol la leen jàngal parce que tey soo nekkee nit tey mu nga nekk nit koo xamante ne tey da nga ne tey da nga soxla réew pour jiite ko da nga war a yar sa bopp ba pare di joxe bon exemple Ousmane Sonko tey suñ dof dof loon tey ba mu nekk président de la république salaamaaleykum ñu lay jiñ viol maaleykum salaam nga nekk koo xamante ne tey lu ñuy wax ci lu bon yow yaa koy jàngal xale yi parce que nee nañ xale ci biir réew mag soo nekkee ay xale da ngay joxe bon exemple tey tegu ci yoon di wax loo xamante ne tey xale yi suñ ko waxee suba doo leen dóor. mais nit ku toll ni Ousmane Sonko est-ce que war na mun a ñëw taxaw di jël ay yenn moo di ko adressé son excellence. suñ njiit def ñoo yar yaruñu ci xeex yaruñu ci xulu yaruñu ci saaga moom moo tax ba nga xamante ni Ousmane Sonko fu mu toll tey di wax di développé ñu seetaan ko tey ba mu yegsi bi fii mais ku mel ni man man nee naa dès maintenant nekkatuma tey di déglu koo xamante ne kilifa lañ ci bul tontu Ousmane wala bu leen di wax ak usmaan parce que Ousmane moom jàpp naa ne wax bi mooy nekk tey jii ku koy may bës parce que su waxee ngeen tontu ko su boobaa ngeen mel ni moom mais nag man day maintenant dinaa jël léegi samay responsabilité tey fu mu waxatee man dinaa taxaw jël samay responsabilité te tontu ko te won ko ne président de la république du moromam du àndandooyam bokkul ak moom sax école bay bokk ak moom classe wala récréation amul loo xamante ne tey jii war nañ ko mun a xool ci Macky Sall tey di ko estimer tey ci Ousmane Sonko déedéet usman Sonko du xam-xam du mën-mën gisuma man benn loo xamante ne nit war na ko Ousmane Sonko war na ma ko mën a wax man mu jaaxal ma war a mu koo teg ci taabal tey ma war ko ko mën a toppee gisuma loolu ci Ousmane Sonko. waaw am na ay jeunes yu ko topp mais jeunes yi ko topp yëpp du bëgg lañ ko toppee du xam-xam lañ ko toppee xëy na ñàkk nañ luñ def wala tey ma riirandoo di leen yóbbu ñu toppi Ousmane Sonko. mais jeune bu conscient du topp Ousmane Sonko ban jeune nga gis bu conscient rek bu topp Ousmane Sonko amul Ousmane Sonko euh, dafa nekk nit koo xamante ne tey euh, maanaam mënatul dara mënatul rafet ci ci réew mi parce que tey dafa indi jikko boo xamante ne tey dafay wane jikko boo xamante ne tey moom su toogoon tey ba nekk président sax yàq na jikkoy sénégalais yi. Ousmane Sonko tax na tey ba nga ne population dañuy janoog tey homme de tenue Ousmane Sonko tax na population bi tey jii ragalatuñu homme de tenue parce que tey li muy def fu mu toll tey jii def ay tojaangeem ba pare ñëw taxaw wéeru ci ginnaaw population bi te naan leen bu leen nangu président wala bu leen nangu mais lim def nii yoonu ak Sall newu ci Ousmane Sonko couvre-feu la ñu wax yow nga yem sa kër ma yem sama kër keneen yem suñ kër citoyen la comme ñun gënuñu. mais pour pourquoi tey jii mu war a mun a génn tey romb ay garde corps am àndul ak kenn loolu moo lay woon ne ku jubadi la àndul ak benn garde corps dafa jóg demal boppam kon tey luñ ko fa wax rek moom moo ko def su ko defutoon duñ ko wax parce que Adji Sarr man owu ma owul keneen joxoñu ma joxoñul keneen Ousmane Sonko la joxoñ kon tey liñ koy wax nii di ko naan demal procès dafa war a dem procès parce que liñ koy wax moom jëfam la Ousmane sonk moo jógal boppam tey dem salon massage kon tey man mënumaa gëm jiñ viol jiñ viol amul su fa demutoon duñ ko ko jiiñ Ousmane Sonko dafa def su defutoon duñ ko ne yow yaa def bon yow fekkee woo man fekke wu ma mais kim sekkal te def kooku moo ne moom moo def kon ñun kooku noonu ñoom ñaar ña bokk néeg ba lañ def suñ génnee kooku li mu wax ñun ci loolu lañuy ñuy jàpp Ousmane Sonko dafa def su defutoon duñ ko ne yow yaa def Ousmane Sonko dafa war a mun a xam ne tey moom ndaw la te ndaw da ngay yem tey euh, fi nga war a yem parce que tey soo ne da nga bàyyi ñaari soxna am nga soxla mooy lan da nga war a dem maase wu toute la journée demuloo maase wu ba heure de crime nga jóg tey ji benn nga ne tey da ngay dem di maase wu àndoo garde corps àndaloo ak kenn kon tey man su ma paree pour defi lu bon du ma ànd ak nit ku may weeje du ma ànd ak nit ku may xamal damay jóg man kese ma jóg dem defali sam bopp. am nañ ci plein droit tey ji waa ji def naa euh, dafa am kenn ku ci nekk tey foo yem kon tey euh, Sénégal dafa am loi tey li nga xamante ne moom la loi bi wax nañ ko appliquer li loi bi wax suñ ko appliquer dinañ xam tey ji ndax moom dafa war a dem euh, élection warul war warul dem élection. loolu mooy motadi parce que soo taxawee nga ne damaa soxla réew pour jiite réew da nga war a mot matière gi ne ci yow moo tax ma ne la Ousmane Sonko man ñi ko topp man ñoom laa yërëm li tax ma yërëm leen nit ki nga xam ne da nga taxaw nga ne dama ñëw taxaw pour jiite leen pour tabax réew wala pour defar réew jikko yi nga war a njëkk a defar. Hmm? waa léegi nag nit yow balaa nit di la respecté yow yaay respecté sa bopp. waaw mais Sonko moo def loolu ñun weranteetuñ ko parce que Kim Seckal moom moo taxaw ne Sonko moom moo ma def nangam su ko defutoon tey jii moom amul sañ-sañ taxaw ne tey Sonko moo ma def nangam. mais Massaly man kuy xam Sonko ku nekk moom bokk na tey ci ñi gën a xam Sonko parce que tey jii su fekkee journée sax ñoom ñaar ñu ngi ko doon def wala ñuy def tey ay heure te nit ki sooy def ak moom ay heure tey jii am na loo xamante ne tey xam nga ko ci moom muy ay jikko. suñ man suñ ma wooyee sama copain wala tey ku may fréquenté ñu ne ma moo def nangam su ma analyser fi ma toog dinaa xam ne euh, jikkoom la wala du jikkoom xam nga Sonko dafa manqué parce que soo toogee tey ji di naan ngay wax ak en tant que njiitu réew te nga ne man dama suba dama bugg jiite ji réew kon tey li ngay def tey ci jikko yi suba tey soo demee pour jiite réew tey su la ko population di def doo ko bañ foo jëm kon ak population bi parce que soo buggee taxaw tey mag nga naan gat sa gat sa hmm? est-ce que est-ce que ku war a joxe bon exemple man di nga nekk tey di di saaga di nga nekk di wax wax ju ñaaw ba pare bëgg maa jox ay directive tey pour ma jaar fa su ma amoon opportunité tey pour jot Ousmane Sonko pour toog ak moom face à face euh, dinaa ko xamal boppam yemale ko te ne ko tey mu def ndànk ci li nga xamante ne tey mooy suñ président de la république euh, Macky Sall du mook moom Ousmane Sonko ñun la ak moom Ousmane Sonko su buggee taxaw tey fu mu taxaw xool lu ko neex mu adressé ko président de la république loolu euh, ñun damay gis ne ñun suñu ñàkk fayda la parce que Macky du moom du moom ak Ousmane Sonko Macky dafa raw Ousmane Sonko di dem Ousmane Sonko lu lu mu tekkee ci mim réew lu mu jiite ci mim réew Ousmane Sonko tey jii soo buggee taxaw tey jii nekk benn béy amuloo bàjjan nga bëgg ñëw taxaw tey ji jël kilifa réew ki ñëpp jox réew ki ñëpp jox cër ki ñëpp xam ci fulla ak fayda ki ñëpp xam ci yar tey ak teggin wax ndànk wax tuuti liggéey lu bari nga bëgg a ñëw jël kooku noonu tey foo tollu tey di xool wax fu mu gën a ñaawee nga am manque de respect di ko ko teg joxoo ko cër kon Ousmane ko ñun population Sénégal ñun joxuñu cër te ku ñu joxul cër yow mënoo ñëw jiite Ousmane Sonko fi la taxaw mu ne moom bés bu nekkee président de la République màggal dootu fi am gàmmu dootu fi am. Ousmane sonk ci ban religion la bokk Ousmane sonk dafa jot mu régler boppam dafa jot mu dal mu tey li nga xamante ne nag moom la doon am ci Fatick ñun en tànk tey ji jeune ñun en tànk tey ji doomu Fatick en tant tey ji doomu Sine Macky Sall tey di suñ mag di suñ lépp tey ji soxla ab réew wala mu soxla tey ab dëkkam nee nañ képp kuy wàlluwaane da nga fa nga dëkk dafa tëggul mais Macky tey ji lu mu soxla tey ñun dañ ciy dem ànd ak moom ba mu jeex te woon Ousmane Sonko ne tekkiwul dara ci mim réew li ngay gis Ousmane sonk xaw ko am ci dëkk mooy maanaam li jeunesse bi euh, mere tey jii li nga xam ne mooy leader yi dëkk bi leader dëkk bi xaw a jox jeunesse bi ginnaaw lii la leen jeunesse bi meree lii moo walal tey Ousmane sonk su fi juróomi bopp ci lii la mais Macky Sall tey jii ku gis tey jii bilan am fii ci mim réew nga xamante ne tey jii liggéey na te ñun Sénégal lu ko jëmale kanam moom moom moo ñu ñor. mooy suñu yitte xam naa ne Macky moo ma gën a bëgg réew mi Macky li tax mu gën maa bëgg réew mi dafa am fu mu fekk réew mi am fum mu toll ak réew mi am fu mu bëgg a jëmee ak réew mi te lekkete kese na xuti bay lu nit tey jii di gumba gumba gumba tey soo xoolee fi réew mi toll lu nit soxor soxor nga xool fi réew mi tolloon ak fi mu toll tey nga xamante ne waa ji tabax na réew mi liggéey na réew mi. maa ngi leen di remercier di kontaan bu baax a baax ci yéen di delloo njukkal ki nga xamante ne tey mooy suñ président de la république di ko encourager ci li nga xamante ne tey ci la ne tey di ko naan tey ñun ñu ngi yëkkati suñ loxo tey te nekk ci ginnaawam lu mu soxla suba ak ngoon guddi ak bëccëg ñun en tant que doomu Fatick en tant que doomu siin en tant que rakam en tant que léppam ñun mënuñu am lu ko gën mënuñu am ku ko ëpp mënuñu am tey leneen lu dul moom. tey ñun waa Fatick tey dañoo am tey loo xamante ne tey lu rëy la en tant que président judd ci réew dëkk ci réew màgg ak ñun ci réew ñëw jiite réew kon ñun dañ cee war a jël suñuy fukki loxo ak juróom def ko ci ba nga xamante ne tey li nga xamante ne tey moom mooy ambition ci réew mi mu mun koo motali. li tax mu war koo mun a motali mooy réew mi toll na foo xamante ne tey fi mu ko fekk ak fi mu ko indi. ñun loolu suñu tiitër la ñun en tant que Fatickoi loolu suñu tiitër la parce que tey am na fu mu fekk réew mi te am na tey fu mu yóbbu réew mi kon tey loolu dañ ko koy sante di ko ko gërëmee di ko encourager tey waxaat tey en tant que ci dëkk bi képp kum mun a doon nga gën a jàpp li nga xamante ne tey mooy jeunesse dëkk bi gën a jàppale dëkk bi parce suñ jàppale dëkk bi jàppale jeunesse bi jàppale wuñ kenn seen bopp lañ jàppale kon tey dañ leen di sant ñoom ñëpp di leen gërëm te di leen tàllalaat loxo te di leen naan Fatick yëpp nañ ñëw ñu jëlaat suñuy lépp jógewuñ ci Macky Sall mais nañ jëlaat lépp ñu bokk ko doon benn niñ doone woon benn 2012 Fatick jëmaat ci kanam Sénégal jëm ci kanam